والقدرة والعلم والشكر والرضوان والحق والأمن والكون والفضل وما سوى ذلك والمجد والعبد والسيد. waaw ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen xamal ne kii may waxal man xamuma sax man ci sama jàpp xamu sama tur waaye jëmm ngi nii joo xam ne ji yàlla bu mu gaaw waaye dina fi ne ba jóge fi te fi ngeen ko xam. nee na wër na jëmm ngi ni yoo xam ne jii yàlla rek ko xam a yonent bi ak jëmmi Sëriñ Tuubaa lii mu wax ci alxuraan wax ko ci yonent bi wax ko ci hadiis yonent bi képp ku bëgg a jëriñu addina ak àllaaxira fexeel ba teew ak moom la ko ci bisub tey bii. jóg leen. Ah, bismillah. yan moo lu waa.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 waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba nu yàlla julli ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nuyu sunu sëriñ sunu xaalifa di seen Cheikh Saad Cheikh Saad Jimbira di nuyu waa kër njabootu Cheikh ma Jimbira gi yëpp ak njabootu Cheikh ma moo yi njabootu Cheikh Sidou Jimbira di sunu borom. nii ngeen fi dikkee yaa ngeen fi dikkee ay yoon yu baree bëri li ngeen may laaj nag ci Cheikh Mamoudi Djimbira di sama waajur di nit koo xam ne nii nitu yàlla la woon koo xam ne nii ku ragaloon yàlla la lépp mi yàlla la daawul bokk ak yàlla dara dëddoon àddina ah ndax baayam bi mu fiy jóge dañ woon am na lu ko baayam daan yóbbaale baayam dem ba génn àddina neen lu ci bari moo ko yóbbaaleel boppam moo tax ni ngeen ko gisee ni mu meloon nu mu diisoon gan loolu rek la ay bagage yu bari rek moo newoon ci moom اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اصلح لنا شيئا ويسر لي امرنا والعقدة من لساني يعرف ويتقن قولي الحمد لله رب العالمين maa ngi sant yàlla bu baax yaa ngi may laaj nag ci koo xam ne kii naqaree xam la ndax daf di nit koo xam ne ci dafa di nitu yàlla nitu yàlla nag am na lu muy jëfandikoo di ko xam nit ordinaire du ko mën a xam man bàyyi moo boole woon moom ndax bàyyam sama sama yaay moo yàq sama loxo yóbbu ma ci bàyyam di ko nuyu dama leen yooyu sama loxo ji mu ngi ko mu tudd mu ngi ko mu baax mu koy tudd dafa nekkoon lu ko di liggéey ci ci maçon mais xooloo patron ñu ngi bisikaay meer nag ci bëgg moomu taxawaal maam Cheikh ñu ma ma waa woon ko muy ma yëre loolu lan ma yëre loolu lan muy ma gisoo ci turé man ko xam ah, kay man moom turé boobu laa loolu loolu sama yaay jabel mhm. ma ànd ak demee Louga li sëñ ànd ak moom moo lay jàng waa Kër Demba sama dëkku papa ñëw di ma seetaan mu jàng naan moo moom xaalis la leen dafa maa tëgg tawal la dafa maa tëgg tawal la. alhamdulilah euh, maa ngi gërëm la bu ma sawar di nuyu waa Kébé yëpp. ba bawuma kenn góor jigéen mag ak ndaw di ziare waa kër Cheikh Mouhamadou Djimbira waa kër Cheikh Mamour Djimbira képp sant Djimbira rek maa ngi ziare Cheikh Mamour yi moom nga may laaj dama ciy kontaan ndax dafay sama sëriñ di sama lépp di sama xarit jële ma Mbour en 1973 ma ànd ak moom Cheikh Mbaye Ndiaye bu Mbour boole moom ma ànd ak moom ñoo Kébémer वो बिल्डिंग की मैंने मैंने की वाओ चिंबिरम जिको गुदिल जिको बच्चे के सुबह गौर तो अमुन नाइट टांग ना तुम्हें क्या भी सेट ना अमुन की टाव लेफ्ट मैंने की ना हम बता रहे हो मैंने गुरु याद दिवाली याद मुस्क इको न्याने याद याद याद बड़े लेर बुबले मैं इधर न्याऊ ma nekk ak Cheikh Mamour yi ba mu dugg këram ma ma nekk ak El Hadj Cheikh Sidi Jimbira nekkoon xalifa Cheikh Mouhamadou Jimbira moom la ñuy jooy ba léegi ci noppee bu ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla doon leeram. Mhm. defal ko jabootam ak njaboot bi bépp jullit di ziare waa kër Cheikh Mamour Jimbira di leen yàlla yàlla may la wér ak kàttan ci barke yonent yàlla Muhammad Cheikh Mamour nag dafay wàllu. Mhm. daan na ma wax ne ma Ndiaye ma ne ko dimbale ko mu ne ma ñu muy ji ñu wàllu bi xam naa ne wàllu bi. dundum yàgg. ak moom macha allah. kenn du fay ba yow doo wax ci ay ci doo wax ci ay jëfin doo wax maanaam ci ay comportement Cheikh Mamadou. kenn dootu bëgg mu bàyyi. dëgg kon lépp lépp lan moo ko may mu ragal yàlla. rek kay kay def bàyyi ko daal. waaw waaw waaw dafa demoon ba këram yi xale bi daf koo jël dama xamoon li man bay sant yàlla ana bay Cheikh gannaaw maa ngi fi nekk gannaaw xam waaye bis bu bu ñu woon ne gannaaw Cheikh Mamour ngeen xamoon ak man bi fi nekkee ak ak man maanaam safee léegi mhm. ndax dafa am loo xam ne maanaam minallaaye ci gàll la jóge ñëw ci moom mhm. dafa am loo xam ne man nag man Cheikh Jëmb rek man maa jël rox ko moom nii du kon gannaaw yàlla tey gannaaw maa ngi fi du ngeen ko xamoon ay bis demee di ngeen xam ki Cheikh Mamour dëgg la li alxuraan di wax naan si sourate Yaasin ay bu guddi bi mu naan innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun subhaana lazi bi yadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un maanaam nameelu yàlla xam nga nameelu yàlla mooy lan nekkal rek mu nekk kon yàlla moom moo namm loolu ci billaahi yàlla desel bu ko dara mais dafa am loo xam ne maanaam Mamour jagawul loolu yàlla moo ko moo koy yelloo mu delloo ko. daan na ko wax ci waxtaan. billaay muy toog na sama garab bi nii ngi tudd suñu borom yàlla jox mu benn mbuur. mën na ko yëkkati. kan bi kàbbal teg ma. ni ma mbuur nii boo ko yëkkati. bu dee guddi balaa bët set. ñëpp ñoo taxoon ni maam Mor yàlla. ma xam man loolu yàlla wu ma yàlla moo ko yàlla. mais yàlla joxoon na mais jëlu ma ko du dëgg du borom tabaraka taala mm-hmm. yàlla mi ñu may mm-hmm. mag mu mel ni Cheikh Aliou Mbour Yeah. Mm-hmm. nangam da mos la génn daal ci keppaaru baayam tabarakallah alxuraan ak yëpp ci la ko jàng koy tagg yonent bi yonent bi ak dem ci tool yi bay ak dox sa yoon ñoom ci baayam ñoom laa jaatee ci taalibe yi yi jàng alxuraan jàng ci daa ki daayira yi dama ko ray ray yëpp daal tubaarkalla daf mu daal ci lépp ci bàyyam dëkk yi bari daal dafa indi ko yónni muy dox ay yónnente laaj addiye ji ñëw di tarbiya dem ci tool ji ko liggéeyal daal benn daar mooy xanaa daar yi seen ginnaaw Mamory Djimbaló muy génnee bu mu fi nekkee muy génn àddina li ma yaakaar li ma jàpp man maa ngi am 12 ans maanaam fukki at ak ñaar donc boobu nekk gu ma woon majeur mineur laa woon donc kon xëy na li ma lay wax ci moom Cheikh Mamour yi dafa dunia waaw li Cheikh Mbaye Ndiaye Samb doon wax naan Cheikh Mouhamadou Jimbira dafa dëddoon jublu dunia jublu yàlla ak rek loolu la Cheikh Mamouri defoon tax ndax moom dafa inspiré woon ci baayam di Cheikh Mouhamad Jimbira waaw baayam defar ko nag sol ci moom li mu doon sol ci moom ñëpp mën nañ ko seede waaw ba tax na moom tam mu wéetuloon yàlla ndox moom nag mbiram yëpp dafa jaar ci tànku baayam Cheikh Mouhamad Jimbira mu nekk nag yan bu diis gann ci moom waaw ndax bis euh, toog naa Cheikh Mbaye Ndiaye Samb naan ko ñun dëcc euh, jimbere ñun mus day xamé gaynde euh, sam papa niko euh, cheikh mamour niko yow da nga man man mi nga yaakar ni gaynde la dama bëgg nga yaakar nga xam man yow rek mag yow ñoo yam waaw ngir manam suufeel bopam rek modesti moom moo tax wax loolu mu ni cheikh mbay jaay sambu man ak yow dañoo yam ndax képp ku jébbalu ci baay mo képp ku jébbalu ci papam di cheikh mouhamad jimbere dama lay nawlo lolou la ko sam papa wax keroog ñu ko képp ku jébbalu ci bay rek dama lay nawlo ndax bay defuma ko ngir bay rek dama ko def muy sama sang di sama sëriñ donc Bayam dako def muy sangam di sëriñam li la wax kéro am na am ngeerum bu baax nak ci bay ma ngi digalam ndax musta mooy benn yoon fu mu dem dañ ko faa yebal bu ñu koy wax bu ñu bu ñu yónnee ci ndigal daal daan ndox ndigal digal doon dox rek ko yónnee mu dem dox li muy dox dikkaat ci kër même ñu maase loon tarbiya nak ne talibé ñay ñom bu bakkar jang Cheikh ñaan bint Cheikh Jabel ñom Cheikh ndaxte ñëpp daal ku ci mësa a jéem lu góor sa baam ndax li nan boy na rek maam wër ndax mu leen maase jamono bu mu soxla di wax leen ko ñom ñu dëkk la gi géyal ko waaye daal dana xamoon man ma jébul nag xaalis maam Cheikh téye nak boy ma ak maam Moodu ñoo boole naa la ak maam Moodu ma ànd ak maam Moodu ànd ak maam Moodu ñu bokk nekk fu mu jëm jëm fu mu jëm jëm place teraanga bu dee mooy di di ñëw ci place boobu. ma ànd ak maam mooy di ko tëggal mu yàgg ma yëg lu nekk ànd ak moom mu yàgg mu benn année maa ngi sàngoo sàmb maam Cheikh ni ma dama bëgg nga dem ñu sàmm. ma ànd ak sàngoo sàmb dara na ko yàlla yëpp ñu dem ñu sàmm maam maam Cheikh ñoo mu baax mën ko dimbali mu ne ma dama bëgg ba ñu ne ñu sàmm li ma la wax kat bu ko fàtte man ko du ma ko fàtte maam. mooy boo demee ñun sax kuy tëgg sabal bu weeru fee maam muy maam muy tudd yàlla bu tëggee sabal kenn du tëgg mhm. feeñ maam mooy génn ay bànq maam mooy yàlla mu takk sama digg laxasaayu daal daal maam mooy biñ daal def cent mille benn sabal jooytu ñun sax benn man rek a tëgg. xëy na ma daal ka وتباركت فينا وتبدل فينا maanaam manqué naa manqué naa ko ci ci ci mu nekkoon. Mm-hmm. waaye nag yàlla moo boole. Mm-hmm. ba ñu ay jën ay xale moom nag man maa doon jël xale. waaye moom loolu la nekkul woon xale. ndax man it làmboo loo xam ni. a tabaarakallaahu man dépassé na ma man ci sama jëloon ci ànd moom. Mm-hmm. waaye nag ànd maa moom rek bëgg ko nag. gëm ko nag mu doy ma nag ci loolu laa àndoon moom te alhamdulilah nga xam ne jëkk ko gis ci mooy ay kelaama mën ko def eh, ci affaire ndox ndax dafa ànd ak Sidi Boye Djimbira Meye Sidi Boye li li subaa dana taw ba

xëy na tagg yonent bi bu daan def da ko doon mbubboo nii rek nit ñi xamoon ko tagg yonent bi way Karbala waaye nitu yàlla bu mag la woon ndax baayam a ko ñaanaloon mu tarbi woon ko mu defal baayam lu ne mu ko daan yónni fu ne daan ci dëkk àll yi njeñ ay ngay ngay ay dëkk yu wër fii dëkk yu ñu wër fii ci Kébémer maanaam ci dëkk nekk ci gox yi yépp fa daan yónni muy guddi muy bëccëg muy heure bu mu mënti doon rek baayam yónni ko mu doon xale bu ndaw nag Ah, ba ku ko daan gis sax muy dox dan nan ah way Cheikh doomu Cheikh ma dimbali ji numu tuté tuutee di ko yónni nii bu ndey di dama jaaxal way fu ko daan yoni rek dana dem ak jam di ko jam te bo waxe boko ko daan wax ah yow fo jëm ni munu bàyyi la moomu yónni mun ko fi fii mun wala munu bàyyi léemu na ma bu ko defé nak bu daan dem bu daan dem dana dem ci jam dikk ci jam tar bu bàyyam ba bàyyam genn adina mu ne ci la mu nek wa boko musa na fekk ci garab gi boo ko bu ne léegi kii Mamour sax doo ko doo ko doo ko doo ko ko yaakaare ndax foo ko fekk mi bagage yàgg góor gis nga dénk yi mu daan jëfandikoo lu mat fukki at daan ko def lu mu daan def rek boole ci dénk yi mu daan def. yow mi def na di bakkan yi yaram yi yaram yi yow rek ak ca booni ngéem moo xam ne mas naa jéem a ci maa moo di ànd lépp balaa koo nangul ngéem a def ci ma kaay teewe loolu lu la wax laa ne leen kaala na ma métal ma tukku bëccëg maa moo di woo ma métal ma ni ma kaay ma dem sama papa laay dem seedal ko ko boo xoolee ko seedal saaxal naa la waaw lu nit di def ak maamour rek ci lu jaadu ci taalibe mu doon sëriñ ba rek jaar naa ci ak maam wooy dëgg la bu imaan mbay njaay sàmm mbay noo ko indi maa ko indi daal di kéemeer ndax booba dañuy jàngal jigéen bi naa Aysa mooy magi mbay njaay sàmm ca mbuur ñu ànd ba noppi mu ne ko yaay yaay muti maane damaa bëgg dem kéemeer ànd ak maam Mori yaa ngi ne ko ah matu maa maa ne ko maa ne ko ah mbay tegaam mu ne ko damay dem rek mbay baax ba dee ba tubarka la ñu ànd ñëw fii Kébémer moo dal fi benn téere bu ñu naan Ibnu Asir moom jaay jëkk a jàng fii mas naa ko rappelé sax fa ci nim sax man ko téere ba nga a jàng Kébémer dëgg dëgg mbay suñu demee ci ay jàng bambo da ko naan bu wax bul way benn benn benn air. sikkar rek ngay def sikkar rek. Mm-hmm. waaye bu sikkaree balaa si balaa balaa balaa balaa euh, euh, jàng yee ñëw. Mm-hmm. kii jàng dana fekk del ci sikkaru jaay sam. loolu la ko yàlla daal di may. Mm-hmm. te dafa ñëw si ma Jibi daal koy defar rek. moom mbay jaay sam. mu nekk nag xale bu baax. fa tabaarkalla ko am wóoree ko am pas-pas liggéey na lu rëy ci tariixa lu rëy rëy rëy la mbay jaay sam fii nag. taalibe yi fi jaar bari mhm. ci Kébémer fii ci kër ndax man nekkoon na fi ak ñaan bi tas nekk fi ak Boubacar Dieng nekk fi ku ñaan Basiru Seen nekk fi ku ñu naan euh, moom ma baba mi daanaka xalam Aliou ak Aliou mooy seen maire waaw ñun ñëpp ñu bokkoon ci kër nga xam ne nii jaar naa ci ak maam mooy ci wàllu baatin mhm. xóot te neexu la wax ci rajo am na yoo xam ne maam dafa ma mas a ne mbuur ma ne ko jibér ma boo nekkee ci kër kër kër wëli ak kër pay man ma ko man ma daa rek ñoo soo dee développé seen secret dañ lay génn kër la nga ma bu baax am na secret yoo xam ne ni sëriñ bi ko wax euh, taalibe bi bu dee seexul murabbi Cheikh Oumar Cheikh am na yu nëbb yu xóot yu mu la wax yoo xam boo ko boo ko publicité rek daf lay daf lay daf lay écarté waaw ni ni jaay euh, papa dama dégg koro nga ni ma mamouri di bàyyam jënde àddina ni ko daal di digal daa daan fekk fii naa la bu gan gi gane si waaw booba Cheikh ma jibra ngi gën dund de ah. waaw dafa daan ni ci kër gee bu dikkee fekk ma tëdd man ay trois heures du matin hmm. tey jii nelaw lu gaaw a am gan ñëw naa tey gan nga gan ca gan ca gan nga tey naa mu ba jógal tey jii nelaw lu gaaw a am gan ñëw naa tey gan nga gan ca gan ca gan nga tey naa booba wilaay yi moo ñëw ci moom xëjootu ko nag fees dell bu dikkee nag yéema ay boo di trois heures ma jógal soo tee yéene maanaam man ma tey doo fi nelawe tey doo fi nelawe ma jóg nu ànd ñu ci bayaal bii so la ñuy toog ba trois heures du matin jàpp quatre heures mu bàyyi mooy may doon sëriñ moom mu tey fekk deesara wu na deesar sa wu na tuuti waaw ndax li ci si moom il faut moom fu mu ko sotti waaw loolu la nekkee ak man ñu commencé di roñ di roñ kaw bi ni kër sa taxaw ñuy roñ di roñ ba dernier élément bi ñu dugal dugalal ko ci néeg billaahi fala taw bi commencé wax suubat muy benn kiraama bi bizarre boo xam ne Cheikh Mamadou donc am lu ñu jote woon moom nag bi muy avant muy génn àddina moo man ak sama rakk bi mu naan day xati dimbal nday xati moom mooy caat man maa te man maa ci xaw a teg nii moo ma mag waaw man ak nday ñooy ñoo waaye at mi ñu waree génn àddina woo nañu mën ak nday xadi benn geela nii maa ngi koy fàttiku ndax xale du fàtte de mhm. te génn génn àddina kenn du ko si mhm. yàlla rek may tax may wax fii sabilillah te ngir te yàlla tax mu woo ma ñëw mu teg ma sukk sukk samay óom mun ma sukkal liyaar ma parce que dem na ba dafa dëdd mënatul wax ak kenn mhm. du wax kat da lay liyaar rek ñu la toogal ma toog ñu jël loxoom teg ko ci sama bopp bii taxaw si kaw dimb def ki man li muy def ki man maa li may dégg daal ci moom ay noyyi lay dégg ci moom ay ay ay ay soupir ci kër daal di noyyi teg teg ma loxo teg ma loxo ma sentir sama bopp si am lu dugg bu diis gann mu pare daal ni ma demal ñu ne nii demal ma toog mu ñëw woo sama rakk bi Ndeye Khady yaa rax yal na ko yàlla yëg defal ko noonu donc loolu protection bu ñu doon def la bala mu fiy jógee te ci at moomu bi ci ci at moomu la génn àddina donc côté boobu dañ ciy sant yàlla ñu xam ne am na fu ñu joro jaat ak moom jota jot a jaar ak moom am jot naa bak barkeel ci moom tam ndax daan na ma woo fii ma ñëw mu ñëw ni ma nii ma woo ma ma dikk mu ni ma damaa bëgg nga bësal ma sama yaram wii waaw ma yëkkati yéreem yu tedd ya dugal sama loxo ci yaramam bi di ko bësal di ko maaseel ci sama loxo yii loolu am naa ko ci moom alhamdulilahi rabbil alamin waaw Cheikh Mamour nag yàlla dongul luy biir yàlla rek ngërëm yàlla rek loolu waaw yaa bàyyi ko fi mu yan yan bi bàyyam yan woon boole ko yan bi nga xam ni yàlla invité ko ci moom ni koy Cheikh Mamour damaa bëgg nga nekk ci sama góor yi yan booboo diis ci moom mu booleeg dondu bàyyam dondu baayam ci baatin baayam yi jox ko la mu yan woon yëpp jox ko ko ñaari yan yooyu moo taxoon Cheikh Mamour yi doo ko doon ko sax da daan ci kii du nit ndax il était trop occupé ak course gi léeg du la sax nuyu ndax nee na bu lay nuyu nii la daan def boo ko daan jox dara dana nii téye ko tege ko yow loxo ndax lan nee na may toll naa yàlla foo xam ne nii ku ñëw di ma jox loxo dinaa xam li nekk ci yow ndax danga ma bëggam danga maa bañ ndox mhm. lu foofu toll dama koo tolloog toll ci yàlla moo war boo gisee may def nii sama loxo loolu da ko kere mooy te bugg ndax toll naa xam ne buggatuma xam ku ma bañ ak ku ma bëgg mhm. Cheikh bu sekk mii ca Ndar toog na fii ci dëj dëju Cheikh Mbaye Ndiaye Samb bi ñu toog ñu waxtaan mënuma Cheikh Mamour wan na ma lu ne ba jékki bis jékki toog jox ko loxo mu ni ko seere ma sa loxo chef chef bu seere ko loxo mu seere ko loxo ba yàgg mu ni ko yëngani bi ma la jàppee léegi ñaata minute lay tollool chef bu ni ko ah xanaa ay une minute wala deux minutes mu ni ko loolu lépp dafa am lu ma yàlla yëgal ci yow bu ma téyee sa loxo mu wan man yow mi ak taalibi bu dëgg waaw mu ni loolu moo tax na ma xam ko ci yow bëgg ma jox loxo keneen mhm. parce que bëgg ma xam ku ma bañ ku ma bañ donc ya loolu cheikh bu seede la ak yeneen yoo xam ne nii dund na ko ak mara mu nekk lu yéene lool. donc bu bu gàttal daal cheikh Mamadou Djimbira daal xasbi allah wa ni'mal wakiil la doon dund maanaam dundal yàlla suñu borom wakiilu ci moom nag ko jeex tàkk waaw ak gëmoon baayam nag jiital baayam lépp lu mu doon def baayam moo doon référence am waaw loolu moo tax nag mi am li mu am mu teel a siiw teel a teel a teel a sotti à 50 ans. li ñu wax Cheikh Mamoun Cheikh Mamoun yëpp 50 ans rek la dund. 1935 ba 1985. ñu ne 13 janvier. waaw ba mu waree génn àddina tam mu xam ne suba la war a génn àddina muy samedi ci guddi mu woo Fadal di taawam bii bu góor bi wowul ab Ablaye Jimbira de nga xam na ne xamoon na ab Ablaye Jimbira bu mës a nekk xalifaam. Mhm. yaa ngi dégg. Euh, mu woo xamoon na ni euh, plutôt Ablaye Jimbira du fi yàgg te Ablaye Jimbira amoon na lu mu làmb woon amoon na lu mu meloon moom moo tax mu xam ni comme Ablaye Jimbira du fi yàgg mu woo Cheikh Fadal Jimbira di magam taw bu góor bu topp ci Cheikh Mamour yi bi topp ci ci ci ci ci Ablaye Jimbira mu woo ko fan ni ko damaa bëgg nga fanaanoog man tey ci néeg ci néeg bii muy samedi mu xëy suba euh, euh, dimanche war a génn àddina mhm. mu ñëw ko dama bëgg nga ñëw mu ñëw faadal mu fanaanoo moom faadal tëdd ci lal bi moom mu tëdd ci suuf mu def ci lal li ñuy def ci moom mhm. mu ni ko mu xëy suba yónni ko dimanche bi mu xëy suba ni ko liyaar ko ni ko di yóbbu yónni ko ca dëkk ba mu dem ca dikk ba ba faadal avant muy dëkk muy ñëwaat ñibbi si ci kër gi fekk na mara dog na tekki na ay téere moo doon tekki na ay téereem yooyu yëpp ba dog mhm. donc loolu waajal na boppam avant muy dem waajal na boppam lool waajal ña muy waajal tam kon alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla 12 ans dong laa dund ak moom wax dëgg yàlla donc mënu ma wax moom ci bari daal dafa naa ay ñoom Mafou Ndiaye ñoo la koy wax wala ñi xam ne ñoom ñoo fi nekkoon taalibi ci kër gi ñooñu mën nañu ci wax li mu dund ak man daal lool laa lay ak li ma gis ci moom muy wéetal yàlla suñu borom dëdd woon duniyaa nag waaw mu jigi lekk gi nit ñi di lekk sax lekkatu ko waaw am na xam bu ñu la ko waxee da nga naan kii moom macha allah li muy wax waaye daal ñun dund nañ koog moom seede nañ ko te dara jar ñu ay xam ci àddina yàlla rek la ñuy wax man damay wax ngir yàlla tax waaw loolu daal laa doon seede ci góor gi te loo seede ci moom tam des na waaw kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko yokk leeram ca bàmmeel bàmmeelam donc defal ko nooflaayu bàmmeel ba keroog bis penc bi tas ba gën a fi yan yi may kii yi may wax ci sama moo seere moo ko seere. Mhm. ak am na ak ak maam Faye Diouf la ñoo fekke loolu. parce mhm. que maam Seydou wax man tamit nañu ci kër mu fekk soowu di ko di ko di ko tabax ma sukk ci suuf maam Seydou si kaw lañ yàgg leen tiim ko la. ma ñëw it sama yaay ni ma ci kër seen yaay ma ànd sama yaay dafay déggal ko mu déggal mu mu mu

bi aaroon nag ay yoon i yoon i yoon bu ko mbir mi dikkalee dëgg-dëgg man may dugg naa man nelaw moom yàqal naa ko waaw dama dégg mun la incha allah yow na xiyaam doo dégg salaat jéggi lal salaat boot na la ca fànn jéggi la salaat waaw loolu maa ngi lay gën ci màggu yàlla mhm. mais xëy bu ko neexoon sama roo bi du li max bu yegg mhm. ak i baaxu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa moo mu defal na ma ko mhm. te ba ma koy defee sax dana waxtaan ba waxtaan ñëw ma nettali loolu waaye dama ko waroon a nëbb. dëgg la ah, ndax dana ñëw mën ma muubee man ko mën ma waral ma jàll ma jéggi la salaat mën ko jéggi salaat waaw mën ma waral ma ma diitar mën ma dama koy bàyyi ma xam ji koy wëli su ko bàyyi woon ma ñàkk kon ma ñàkk faaw faaw dootuma ko ne kaay defal ma ko mm-hmm. eh, te xam ne may def moo tax ma daal di koy woo ma daal di nangu la lu lu yéeme la nag ma waral suma gannaaw na war loolu fan la ko defee du fan fan ma dox jël si ci gaz dox jël si dox jël si ñetti yoon man ma wàccal wala moo waral nga yóbboon ko fan ma wàcc man ma man ma wàcc man ma jéggi nga seraat sa yoon nekkut sa yoon nekkut seraat ma gëm ko nag ndax bu ma waxee mm-hmm. te eh, te li ma wax bëgguma ko kon man du doon sama sëriñ moo tax li ma wax ma gëm ko bu rafet waaw siraat bii lu jëm sama yoon na ci wax la ko de wax na ma ko te wëlu yàlla ak nag lu am ma sa njaboot sa yoon nekku ci mm-hmm. sa yoon nekku ci waaye yomal xiyaam maa leen des mm-hmm. illa wala mm-hmm. tey maa leen des ëllëg daal di way nag daal di maqaamul xool du wa am uh-huh. alin faama fi diini wa duniyaana way ko mi sa'atu salika min rabbi ijibu lana bi jaay taa rasulullahi marjana mm-hmm. wa bi inayati say xawaay bi sayyidi mm-hmm. amin amin ya man anta mawlana mm-hmm. wa salli rabbi ma asalam afdaluha ala muhammadina wal ali mawlana man am yaa ko jamoo ni ma xamoo ko ma xam dégg ma dégg dégg dégg xat ko sëstu yow mi leen ko jàng adduna nag ak àllaaxira ni loolu nag sa'atu salika ma koo ñaan ñun rabbi mu jóge ci sunu ak ak moom ak mm-hmm. dañ daan war mag ay mag ñu góor jox ñoom ñëpp bi Seex taalibe bi ñu naan ñaan baare na ko ko ndigal mu ànd ak moom jàppale mu demit ñu jàngam ndax ñoom daal ne jàng maam mooy alxuraanam ak ra ak kàllaamam fa tabaaraka Allah dafa wér bokk la yoo xii la ci wax jàng dëgg moom la daan def li may jàng soxla wu ci dara man ay seex njaag di yóbbu daal loolu lañu mooy tarbiya baax gi dama dégg naa bàyyam sax ma jëkkee sant kër gi moo fi naan nekk naan di ko wattu boobu sax ñu ñu julli suñ ci dugul sama yaay sa ñëwul moom yàgg na si kër gi. Ah, yàgg na si waaye sax yàgg papa moo daan wattu kër gi nee na maa ko la fay bàyyi moo la yéen kër gi mu ngi ko wattu dara def daan tukki dem ak ñoom daal mooy li ma ci xam. daal maa yem na ko waaw yàlla daal xam naa boykat moom bu mu. Ah, wàcce do xaara. Mbour Camaracounda benn quartier ci bu ñuy wax Camaracounda ñu fay jàng Cheikh Mamour yi benn waaye dal fa daanu lee rek sarax ko benn tisi mooy ja jamonoy tergal lu yooyu rek maraal bi yëkkati kii bi joxam mais xam naa ne maraal yi ko xoolee xam na ne mbubb rek la ci am du mot du ci mot am tubay yooyu mhm. mu ne waa ji foo jëlee ndimbali waajale ko kii di sëñ bi maa ngi ko jëndee benn dëkk bu ñuy wax pare bay maraane xii ne daal dina ma seetal bi ana ko mu ne ma kii de ma bi ma jox nee na pare bay la ko ñu yàlla te te fi ñu war a jàngi waaye ñu yàlla ñu yóbbu rek comme damaa gaaw a fàtte bu di ñuy dalal dem ca marché ba ma jënd ko. Mhm. yàlla dogal ñu daal di yegg rek moom sax fàtte ko ñu yegg rek ñu daal di jël taxi. de mars buntu buntu xam nga comme marché kilomètre bi rek quatre ñeenti buntu yi ci ne mhm. këyit la ni buntu bi jëkk a jot bi ñu yem waajaa ngi wékk mhm. en même ngi teg bandu Cheikh Mamour te xamul Cheikh mhm. ñu daal di ñëw rek xam nga ak dis kuy dis bi maraada ni ko ne sëñ bi ñaata mu ne juróom-ñeent ndeysaan mara muñ ak taar baak rafetaay ndeysaan ak yarga mhm. da di arrière da di muñ da ne ah suñu gan bëggoon nga wàññi ko rek eh, ñu mun koy jënd ndax dama koo xam te amu ci tubéy mu ne ko sëñ bi mu ne eh, mhm. ñu ne ko di discuter di werante di di kii waa man kii suma xasee ba teg bànn dootuma bëgg sax jaay moo may euh, moom rek lay dugg jëndal boo mënul nga kii dem ma di muñ des arrière yàlla doyaat li sax sax euh, wàllu yàlla di mun a rek la waaye daal di ñëw rek ne teel daal di yegg si rek yem si Cheikh Mamour la di ko di ko waay sëñ bi mbir waay. kon nga fii mën ko mën dama fii ñëw ay jàng nii am lu ma doon jënd fii mu daal di ne xëy yow diw mu ne ko mu ne ko cheikh mamour yi ni kii mooy cheikh mamour yi mu ngay noyee te mosoo di gis waaja dali gestu rek ne ca kii ba yëq yëq yëq yëq ba fils ba dali tëb contrat ànd na moom ñu rek dadi cot ndeysaan foo solu yaa di astaghfirullah bëgg bu di ko ne dem sama kër maraa na ko déet ndaxte ma ñëw rek mo ni mo moom indi te ñun ñu dara sax ñu ci bëri gisaguñu léegi ko ñu dem jëm su jëm kumbaañ la ko foog ñu dem kër mu jaay leen dem ñu yem fi ñuy nuyoo ko jàmm sant rek waa ji tënn ponkalam kuy moo xam ne daanaka tollam lu nag ñu mhm. <laughs> def ñuy teral ndeysaan ñu toog kii nanoo mujj ñu daal di xamal leen ni ñu ñëw bi ci numu tala dafa am allu mhm. ñu gàllankoor waa euh, xaw ma nag mujj gi dandaan toog Maraane bi moo woo ne ma nga jaay ma ne ko jimbale mu dem suñu waajuroon préfet yi moom a yónnee mandat bi. Mhm. def ko ci enveloppe xaaral buñ kii yow pare ma jox la sa waat. Mhm. ndeysaan yal na yàlla doon leeral suuf si xaw ma am wóor yi. waaw taatu ci barkeel. allahumma amiin jaay. mi dina dañoo mas a toog benn bis ñu dikk ci Seydina Mouhamed ñu ko maral wi metti lool lu bare ngi sikk ngir maral wi muy bis bu di àjjuma ba ñu jullee ci jumaa ja ba kii Muhammadu ñaanal leen kenn ku nekk ba mu daataa yegg këram mbaa bu mu yeggee toog tuuti wala ngaan ma ñëw di taw di taw ba jant ba soo bay sar yow yàlla nga ni ko dolli ba muy Muhammadu Gusaru ne fastahalat bil ghayri sab bil ba muy juróom ñaari fan guddeeg bëccëg muy taw nee mujj waa Medina di suñu ko Seydina Muhammad noo la ñaan loo ñaan nga nangu na waaye nangu ga daa dem ba yegg na ci leer gi tiit na lu ñu ni kolan mu ni juróom-ñaari fan yi mu ñu ni waral na lu bare ñu bëgg a lab ñu sedd ba beeg yeneen sikk yu ñu ragal mu bàyyi ko ci taw ñu ngi koy jàmbat sayidna muhammad dellu génn jàkkaarloo yow yàlla na rabbi xaal rabbi xawaalay na wala alay na bi duxfi xaalina wa ma banay na te teggin rafet la sunu boroom maa ngi lay ñaanati ñaan gi mooy nga wàccee na taw ba ca wàll yéen wër te di la gërëm ngir di la yëgal nii wàcce gi ko wàcce ci def nga ko ba doy na dara nag waralul ma naan la taw bi doy na yow yàlla ngir lu mu doon yaa ma ko gën a xam ngir yaa ma bind waaye damaa mënta bañ a kàddoon te yow waaye bi may kàddoonte yow it maa ngi la naan sunu néew doole bay bal kë bañ kër yi réew wañ ci ku moo waral manaa la na taw bi siwit jaajëf yow yàlla defal nga nu la gënu digoon fa taw ba ne kër set maam Cheikh Mouhamadul ye daal yu ni kon wal xay du faara taw ba daw na ñu ni ko kay la mu ne la maasara ba mu talalee loxo yi jëme ca kaw kàddoonteeg yàlla moo waral wépp wàllu yu woo feeñal gannaaw Seydina Mouhamadou bu defee yi jëf dana mel na ko Seydina Muhammad tudde woon gi Seydina Muhammad ne yonent yi fi jiitu woon ñu bari ca ñoom lu ñu mënoon yàlla def na wàllu yi di yooyu mu feeñale ci sama jamono man Muhammadu jamono ji mu ma feeñale def na ci wàllu yooyu mën nañu lu bari lu dem bay jegeyoog la yonent ya daan def bokk na ci la maam Bamba naan bi fili faala bi dili baala الله مالك السماوات والأرض تعلم في كلام القرآن التوراة وقال الله لتكن أنوار كعلم في كلامك القرآن الإنجيل باسم الرب ملك إسرائيل أنت ملك إسرائيل من الله الواهب آمن بالنور أنت الإله الحقيقي النور melu melu kel ak jàng xam nga xale xale xamul mango ñun xale xamul mango. Mhm. kër gi ñu dal mango yi mango yi ay mango am na foofu mango yu toll nii ay limon wala ñu di ko xar di sa def di sa def si xorom. jigéen xam nga loolu ñu ko affaire xaaral wala loolu. bon nekk borom kër bi mer na si mer na ci leen dikkal yi ay ñoom dañuy wax wax lu ñaaw xaw a ñaaw la lu ñaaw taal ñu déparé foofu jëm jëm jëm ah, jëm yaay yow kër gi fa asen mm-hmm. wala jugee màkk ci ko dégg ko jàngale ba ñu ba foofu lañ ñu ñu ku téléphone ñu koy génn ndànk kër gi la ko maam mooy ngi dégg kër Gaynde moom mooy ñu woon moom. Gaynde la mooy ñoo ko ñoo ko si fi nekkati ñoom fi nekk sax xawuñu ko man sama mbokk man naa daan tëgg sax wala kàlla bi maa ko jàppale jàngal maam boobu nekk na mu jàngale ba mu génn àddina karbala daal la woon mu génn àddina la karbala la woon daal la woon doy ndax karbala waaw maam mooy tàng bu ne dafa ñëpp dafa may sens di ko boo ma muñu woon la dafa dafa xam la muy wax man ko ay est-ce que lu rek daal ñun géwël daanaka ñu si ci mooy mooy Ndane Diop ci xam ñu ci biir ci doon na wax man sama diggante sama borom man Mame Mory ku yàlla mënoo ko xam waaw mhm. doon wax ci dugg man yàlla yàlla mënoo ko xam kon ah, naan ki wax ci moom fii ba suba di jeex tag yonent bi gis nga ko moo daan métier ak jàngale moo daan métier baroon na borom xam-xam yi daan jóge fu ne di ñëw ci moom moo leen di jàngal di leen war bari na si ay ñoo xam ne nii amul murit amul tiijaan amul xaadir ñëpp ay wóolam ay xaritam la Kébémer gi lu muy yaatu yaatu képp koo xamoon dem nga ci moom jox ko laaj ko ci Cheikh Mamour rek dana la wax ci loo xam ne da ngay def Mamour man mii rek la nekk man mii rek la defal amul murid amul tijaan bari na ci ay murid yu daan ñëw macha allah ci moom mu leen di mu leen di wax di leen waxtaanal di leen waxtaan ci Karbala di leen loolu fu ne mu dugg fa ak ñoom te ñooñu ñu doon ay taalib ay daal yees na ñu daal mas dafa ne danga dem bëti yaaram parce que maam yaaram mbay su wëndër la ci ndax maam ñu sa maam Cheikh mu ne ko wëndër la ci man te bëri bëti yaaram bëri alxuraan lañu waaye jënd na ko bor yi fanaan yenn ba set mu ñëw di ko ci nga fanaan ko ñaan ma ñi la nga dem def ko ceeb ak suukar ak yëpp ni ko demal nga barkeel ci daara yàlla ndax wóor la wala bàyyi loolu bokk na ci kéemtaan bi ci des dafa am lenn lu ma ko woy ci sama woy ne ko yow Cheikh Mamadou da ngaa tontu Seydina Mouhamad li tax ma doon Seydou Ibrahima Mohamed mooy li tax ma mooy euh, dama nekk guy barke projet Cheikh Timbéré nekkoon ma nekk ko di béy am benn bis mu dem ne ma ana nga njaay ma ne ko Timbéré mu ne ma tey de dinaa ñëw ca tool ma ne ko am ah, na waaw ñu toog ba bi yor yor mu dem ñëw ma amoon benn mbaam moo xam ne maam Aliou Diop moo ma ko joxoon mbaam mi dafa soxoru benn soxor boo xam ne euh, daanaka dina ma daaneel ak yoon yoon ci yoon balaa ñu yëg buñ batte man yeggee ñu toog Cheikh Mamadou tey may xiir am na benn biscuit yoo xam ne carton la yi ci kees la nekk mu tudd jox ndax ku nekk ci tool yi da koy da nga koy gërëm di ko di ko bégal biñ béyee ba waaj mu ne ma Njaay de tey jii dama bëggoon a noppalu ci mbaar mi dañ di bëri sama bi doxee mu ne ah sama xel mbaa mi de nii mu mel nii ak coxor bi coxor man mi nga xam ne su ma ciy yéegee dina ma daaneel ba fukki yoon ci yoon. Mhm. Cheikh Mamour it dama ciy yéeg ah doy na waat mu ne ma dama ciy noppal lalal ma ma jël saako bi lal bi teg ci mu yëkkati tànk bi benn tànk bi càmmoñ bi la teg ci suuf yëkkati droite noonu mbam di def rek dañu bañ ko jënd mu tekkat ko bu yëkëti wa tank bi daal dañu bañ ko jënd Cheikh Mamadou daal di ko ni ah ayo dénga té jël jënd dégg yàlla rek ko bakkal bi di yaram ni lépp mo man mooy bakkal bi di yaram ni te yow la yalla jagleel ñu war la dégg ngaa tey man na ko ci yow ba ñu ngi rajo yàlla mbaam mi ne teg mel xaar ci ko gam baam yi teg na mu teg na mu teg mais suñu mbiram jàpp loolu bokk na ci kéem daal kon danaa la. loolu yàlla. <laughs> loolu yàlla. ñu dalal ko fa baa. mu ne ko bu ren di ko assemblée ren. dootu doo foo taxawati loo wax kenn du ko jël te koo jëkk wax du wax moom sama jëmm mm-hmm. la foofu la jëkk sol maa moo di mbir man de sama bët mës set tegu ci Mamour yor àlluwa teg ko ci penk. dëgg la diiraa leen ànd na te lu néew néew néew ànd na maa ko amoon cinquante waaye Mamour foofu àlluwa teg ci àlluwa tey penk bi dañ Mamour ne ñaan naa ko nag mu yore man nag sama diggante ak Mamour yi eh, dafa xóot xóotaay koo xam ne eh, bàyyam daf ko mu mu yëngu sa maam lat seen yow daf laa ñëw mbel goo di fekk sama baay bu dikkee fab fas yi yow ko ci sakket mm-hmm. man ma daal di fab man musul maa jigéen ma daal di fab yéeg sa kaw fas ba dama lay nettali rek de mm-hmm. léegi ner bi nekk ci kaw fas ba doy le moo ma wàcc bi Seex ma dimbara woo ma ni ma sa diggante ak Mamour yi mm-hmm. dafa nekk diggante bu yàgg ndax boo déggee na al umu waarisu wala ak mbëggeel mm-hmm. loolu moom mel sa diggante ak Mamour yi mënoo koo bàyyi mën laa mm-hmm. ma nag ma ak Cheikh mu boole ma Mamour ni ma mooy sa sëriñ idi jaay wallaay mën ma mooy sa sëriñ kat mm-hmm. jàpp ci wala ci kenn kenn kenn dox sa diggante ak Mamour loolu Cheikh Madiambra bii moo ma ko wax ci Mamour kon Mamour yi kon ngir dafa te ñoom ñett ñoo ñëpp kenn bokku ci sa morom jamono donc lii la Cheikh Massaer wax kon Cheikh Mamour yaa Maaliki bi boobu di sama borom moom daf ko doon dund wëkkiloo ci moom nag wëkkiloo wëkkilu ci yàlla waaw ngir ci alquran dañ ni man lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa ala llahi falyatawakkal al muminun loolu la lay Cheikh Mamour dund Jimbira doon dund ak yàlla suñu ci moom moom jàpp na lu ko dal rek rek yàlla et lépp mu am tam yàlla na ciy wóol foofu laay waxee rek di la wax nag ni ah Cheikh Mamour da wax dëgg yàlla lu ko xamul mënul bëri parce que bi ñuy génn àddina maa ngi lay rek laa am waaw waaye nag bi mu génnee àddina ak léegi euh, euh, ba ba muy génn àddina maanaam am na foo xam ne jaar na fa ak man tam def na fi loo xam ne nii benn mu'jizaat boo xam ne nii euh, dafa dañu toog fii ci ëtt bi mu nekk taw wax set muy taw di taw di taw ba yàgg dafa commencé di taw muy taw fekk euh, Cheikh Mamour mi ngi daan lal fii ci kii bi ci euh, garab garabam yi nga xam ni bërëbam bu tedd boobu nga xam fa la daan toog toujours mu jékki daal ni kër sa taw bi ni jékki-jékki rek daal di sóob Cheikh Mamour ni ah yow yàlla maa ngi lay ñaan nga téyal ma bëgg naa nga téyal ma sa taw bi ngir dama lal fii ci garab yi te bëgg naa euh, yi nga xam ni sama bagage yii ak sama téere yi mu dugal ko ci biir ci sama néeg bii ba mu paree ngay doog a suuf sa taw bi dama bëgg taw bii nga arrêté waaye ba maraadi ba maraadi yeggale ak ba taw bi naan kër sa taxaw maa ko seede man mii keroog fa laa nekk ca ña doon roñ bagage ci laa bopp muy benn mujisaat bu Cheikh Mamour def. Mamour dimbali. Mhm. maa ngi toog mbokk yi ataaya. Mhm. ñu toog nii malade yi doon bagage di fat. di roñ di fat ba ni dégg taw tànkam ci buntu veranda am dimbali rek taw bi sëb. bis boobu lay waxtaan ba wax ni. am na fukki at ak ñaar. daal fukki at ak ñaar. nga dégg kàddu suñu moom. moom yàlla suñu borom laa wax de dina bàyyi mu yónni ko ci njabi Fall. mu kàddu suñu borom jëmee ko ci moom. moom Cheikh Mamour sama sang bii ci géer. moo wax loolu maa fekk. dama xaw ma toog. Mhm. guddi tam xarit. ci mhm. la paati doomi xarit nga loolu man mii maa fekk. ñu ne suñu borom kàddu naa moom à l'âge de 12 ans. 12 ans mu am fukki at ak ñaar dem ñaar. bàyyi ñu ñu toogee ñu ñu yegg di ko ñuy si di ko siyaare di baale ah, di mu seet gis mu li ñuy wax li ñuy wax ka ay kii bi yànke mooy ma xam moom dafa bari. Mhm. mooy amul morom. Mhm. vraiment nit la woon ku baax nit la woon ku dëgg nit la woon ku xam lu muy wax nit ku war a woon ku am ak yow ñëpp ko sa bëgg ñëpp ko bëgg. loolu nekk naa ci ci kaw avion daa sama maye fan mu woy ko Karbala benn waay bu gis ni ma ko jël waaye foo xam ne kii mën ko ko sama kii sama xarit mën na sa xarit ko sama xarit xarit boobu muy déglu ñu daw dëgg mooy ñu def mooy dox kanam ñu def romb ba Dakar. ndax ndax ndax ndax maa ngi. dem naa am ja domb benn waay bu ko kese boobu ma taxaw jooy jooy mooy waa ji wax boo xam ne bii man man tere naa daal kii maam moo di dund daal. kii sama xarit tabal yi mu ngi dégg man maa ko tëgg. maam mooy kooku ni ma. ah loolu loolu suñu benn benn la waaye keneen ak a jëmul keneen ak a man mu baax mu gën maam mooy daal moom wax dëgg yàlla yoo xam moom bari na daal. waaw teraanga yi teraanga yi ma seq moom yëpp sax daanaka mënu ko lim ndax wax na si bari yoo xam ne ñii dëkk sàngam la ñii dëkk sàngam la maam mooy daal moom moo am mooy moo nit ku mu bëggoon la nit ku mu soppoon la nit ku mu taaroo nit ku tabe la nit ku yaakaar na la loolu mos a ndax te yitti di sama baaba mënul mënul jëm mënul jëm maa jigéen jëm maam asta jëm ñu ko jur yaaram ak moom mënul ñoo bokk leen doon jënte jéng jéng ak ma benn si daal dafa dem la nga dem gët yaaram ma ñaanal la nga waaye dëkk yaa doogu fay benn doom mooy la ko moo fi nekk jàng waaye xam nga loolu du kii. Eh. waaw njàng mi daal yeesu xam naa ñu doon àndal ñëpp xam nañu tarbiya na di jëkk Cheikh Bakar Yen jëlee Cheikh Jabel Cheikh ay ñoom ma baaba mu mboolem daan jib di toog moom jamono daal keneen rek la ñu àndee moom parce que gis nañ si que Cheikh Mamour presque wër na Sénégal gépp ndax foo dem rek wax Cheikh Mamour ñu la borom Karbala ndax ñu bari dama jàpp Cheikh Mamour borom Karbala borom Karbala. Karbala moom soo yàlla moom xelam moom li ma ci xam ni ba ba xam nañu ko ci lépp xam ne xëy xare bi badal xëy baax nga saytoo yem yëpp su ko daan nekk mel na ko seetee seet mu ci dara waaye dara wumtu ko ci. waaye tànnal leen di jox soo ko déglu wax bi nag xam nga kon nag li ma xam ne bàyyam di tabaxee xaw na seex na tabax bu mujj bi mu tabax itam moom moo ma ànd loolu sax daan na xale rek la woon waaye ñoo ànd waaye it naa bay ànd nekk ci liggéeyu xamru bi te yu tudd yàlla sekkal ak jàngal waxtaan la fa daan liggéey génnul daal génnul daal keppaar ñu saat ci tam xamru bi te moo ànd ak bàyyam ñu saat waaw ànd nañu Cheikh Mara Badou Mbaye ak yeneen taalibe yi doon tabax xamru ba après Cheikh na Cheikh Saad bu bi na. waaw bu mujj bi. bu mujj bi. waaw bu mujj bu njëkk bi moo koy dox di. si dundub bi nga xam ne nelawee. Mhm. sama bàyyi ba. ñaan ndigal sëriñ bi ñu may ko ma leen dees moo ñaan ndigal yeesalaat ko. ba muy dem sax doxul deful dara luy dugg war sax ñu di ko yëgee di mu jox leen ci abe si. daan na fi fii mu bañ ñu ngi waxtaan yi ngay dégg moom mooy daan ñu fi di ko enregistré ku mel na Pape Dia moom it wala la ñun ñëpp ñoom Cheikh Faye Mbaye macha allah ñooñu ñu ay taalibe lañu moom waaye nag damay wax rek ñi nga xam ni soppam lañu woon te duñu ay taalibe waaw moo tax loolu moo la wan ne moom ñëpp ko bëggoon te ba léegi ci àddina bi nga toll amul kuy koo xam ne nii rek yàlla def na ci yow ak mbaax ak leer te doo dillu karbala bëgg ko fokk nga bëgg ko am ñëpp rek ñëpp ko bëgg ba tey fa ma lay wax nii nit toujours ma gis nit ni ma wutal ma karbala ma mu wutal ma sa karbala papa mom la soxla ab ñepp rek am mom daal ñepp ko bëgg mhm. wa ñepp ko bëgg kon nak koku bu ñuy wax ci mom ah man nañ ko wax fi ba suba ta du jeex mhm. daan na daan na ma wo di waxtaan ak man tok na bis mu ne ma ah, faadil mom faadil la ma dax man ko jimbal mu ne ma boo gisee ma yéem ñu bari ma yéem ñu bari ni ma maral ci bayila mhm. dama bëggoon bay sopp ko doon taalibeem nag nee na boo gisee ma yéem ñu bari li ma meloon ci moom la kon nag loolu dalay ñaax war ni wayjur toujours nit da ko war a fonk mhm. fonk julli fonk woor jaamu yàlla waaye li ci bu weesoo wayjur moo ca topp mhm. ndax wayjur moo la yéeg yéeg foo bëgg a yegg te ku fonkoon wayjuram la wayjuram bu ko daan jox xaalis da daan parfum xaalis bi mhm. bu ko daan daan raam ba agsi ci wayjuram bu jigéen jox bu dee bu góor it noonu lay def kon mu <coughs> am ngërëmal wayjuram moo tax ni mu mel mu mel ko dëgg la moo tax ni mu mel mu mel moo tax mu yëm ñu bari wax na ma ko kon loolu dafa naa ni euh, mhm. mu mel ko génn guddi waa bi ci dafa am benn sirif bu ñuy wax sirif nabu yaay la mhm. sirif bi mu ngi daan jóge aw di di ànd ak soxnaam di gane si Cheikh Mamour ak mu jël su ñëwee Mara daf daan boole moom may dem ci dëkk bi ñu koy laajal ak Maamu benn bis mu dal di ñëw gaari watir bi Cheikh Mamour a ngi toog ci garab yi maa ngi toog ci wetam di xëy mu jékki-jékki rek dal di yegg si gaari watir bi wàcc ak jub Mamour yi Cheikh Mamour yi Cheikh Mamour yi jóg di dox di ko si man xam nga comme damaa xaw ma la taw ma ne ah kii de xam naa daggi gànnaar yi lay bañ mu riis ci mbubb bi wala xëy na day bañ bu muy am solo. mu lalu ñëw dal studio ponti mara mara ponti bi apparence bi boobu mu dal ne sa Mamour lu waa Touba Mamour ne ko ay ah, dara mu ne ko yow fii nga toog yaa ngi lal sa der lépp yaa ngi toog ci dexu meew ñu la ko ne lépp meew ndeysaan Cheikh Mamour dañ lu ci seen barke mhm. lépp ci seen naa ne mhm. waaye ka ko gisit doom yi yàlla moom. dëgg la dëgg la. kon ay kiiwtaan la. waaw loolu daal ak yeneen yeneen yoo xam ne daanaka moo doon toog ko wax. laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi laylatu mahwi riyadi laylatu mahwi taabi wa tuhri di taasumi biha najaat wal falah ma asrori wan najah biha rabah wa salah ma antifa diqami maam alhaaji Malick taggal na la sa yonent boobee yow yàlla ci naan la mm. keroog ba nga ko juddulee def nga ci moom kéemaan goog ci moom rek laa ko jëkk a déggee moo di wamaalal bayti bil arkaani hatta yu kabbiru saajida midlal fatini dëgg la de Seydina Muhammad Busiri dellu la taggal sa yonent boobee ci naan شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء ay ay bayfaalu Cheikh Sall la kii nag yaakaar na ni moom moo doon bayfaal bu mag bi Cheikh Cheikh Sall fii nii dinañ ko denc koy xam ne Cheikh bu xamul di jëmmi la seen gerte yi ngeen gis ma muy dem di seet Cheikh Cheikh Saad am la woon wow mu samp ko ni bu fekkee ni Cheikh Cheikh nangul na ko ñëwee day fekk mu jeex gis ngeen ngeer gi ñoom moo mag suñuy bàyyi ñun ñëpp ba léegi ngeer daa ngi nii bërëb bii nag yaakaar naa ay wàll yu bari dëkk na ci parce que defe naa Cheikh Mouhamadou ko na xam na ni moom mooy tànku Djimbira parce que tey am na ñoo xam ne tey mooy Cheikh Mouhamadou Djimbe da nga leen di wax kan mooy Baye Mody ñu nag ay taalibe nag suñuy bàyyi dañoo jox bi ñuy nekk ay xale ñoom ñaari at ñu ñëw ba toll suñu xalifa bi fi jógee ba ci Demba nekk suñu sëriñ nekk suñu xalifa yàlla yàlla problème moo xam ne mos naa jébbal ci maam moo di diiraa leen ànd lépp balaa koo nanguñ jébbal def ko di ma kaay teewe loolu lu la wax laa ne leen kaala na ma métal na ma ku bëccëg maa moo woo ma métal ma ni ma kaay ma dem sama papa laay dem seedal ko war xool ko seedal saxar naa waaw lu nit di def ak maam rek te ci taalibe ak moroom sëriñ ba rek jaar naa ci ak maam woowu. dëgg la bu imaam nag côté Mbaye ko indi maa indi daal di KMR. ndax booba dañuy jàngal jigéen bi naa Aïssa mooy magi Mbaye Ndiaye Samb. ca Mbour. ñu ànd ba noppi mu ne ko yaay yaay mutimaane. waaw damaa bëgg dem KMR ànd ak maam Mori. yaay ne ko ah mati maa maa ko yaa mati maa ne ko ah ko damay dem rek mbay baax ba dee ba tubarkalla ñu ànd ñun fii Kébémer mu dal fi benn téere bu ñu naan Ibnu Asir moom la may jaay jëkk a jàng mos naa ko rappelé sax fa ci ba nga jëkk a jàng Kébémer Ibnu Asir la man dëgg dëgg mbay suñ demee ci ay jàng mbaam da ko naan bul wax bul way benn benn benn air. Ah. sikkar rek ngay def sikkar rek. Mm-hmm. waaye mu sikkaree balaa si balaa balaa balaa balaa euh, euh, jàng yee ñëw. jàng dana fekk del ci sikkaru Mbaye Ndiaye Samb. la ko yàlla daal di may. Mm-hmm. te dafa ñëw Cheikh Madiba daa koy defar rek. Mm-hmm. moom Mbaye Ndiaye Samb. mu nekk nag xale bu baax. te tubaarkalla ko am wala ko am pas-pas. liggéey na lu rëy ci tarixa lu rëy rëy rëy la Mbaye Ndiaye Samb fii nag. taalibe yi fi jaar bari nañu. fii ci Kébémer fii ci kër gi ñi fi jaar bari ndax man nekkoon naa fi ak ñaan bi tas nekk fi ak Boubacar Dieng nekk fi ku ñaan Basiru Seen nekk fi ku ñu ma baba mi daanaka xale ba Aliou ak Aliou seen maire waaw ñun ñëpp ñu ci kër nga xam ne nii jaar naa ci ak maam mooy ci wàllu baatin dafa te neexu la wax ci rajo am na yoo xam ne maam ma dafa mas a ne mbuur ma ne ko ci mbir ma boo nekkee ci kër kër kër wëli ak kër pay ma ko man ma daa rek ñoo yàgg soo dee développé seen secret dañ génne kër la dégg nga ma bu am na secret yoo xam ne nii sëriñ bi di ko wax euh, taalibe bi bu dee seexul murabbi Cheikh Oumar Cheikh am na yuy nëbbu yu xóot yu mu la wax yoo xam boo ko boo ko publicité rek. daf lay daf lay daf waaw ni ni euh, ma Mamour yi di bàyyam génne àddina waaw booba Cheikh ma Djibril ngi gën te dund de. Ah. waaw. waxtaan ni ci kër gee bu dikkee ma ma. tey jii nelaw lu gaaw a am gan ñëw na gàncax gàncax gàncax mu bëgg a tey jii nelaw lu gaaw a am gan ñëw na gàncax gàncax gàncax booba wilaay yi moo ñëw ci moom xëñootu ko na fees dell bu dikkee nag yema ay boo di trois heures du ni ma jógal soo tey yéene ma ma tey doo fi nelawe <laughs> tey doo ma jóg nu àndi ñu ngi ci mbayaal bii fa la ñuy toog ba trois heures du matin jàpp quatre heures mu bàyyi ma may doon tey moom mu tey parce que décharge wu na décharge wu na tuuti mm-hmm. waaw ndax li ci ne si moom il faut que moom fu mu ko sotti waaw danga loolu mm-hmm. ñu commencé di roñ di bi ni kër sa taxaw ñuy roñ di roñ ba dernier élément bi ñu dugal dugalal ko ci néeg billaahi fala taw bi commencé wax suubat muy benn kiraama bi mm-hmm. boo donc am lu ñu jote woon moom nag gi muy avant muy génn àddina moo man ak sama rakk bi ñu naan day xati ci mbër day xati moom mooy caat mhm. man maa ci man maa xaw a teg bâche am nii moo ma mag waaw man ak ndaxat ñooy mhm. waaye at mi mu waree génn àddina woo nañu man ak nday xat benn geela nii maa ngi koy fàttiku ndax xale du fàtte de mhm. te génn génn àddina kenn ko si sax yàlla rek may tax may wax fii sabilillah te ngir yàlla tax mu woo ma ñëw mu teg ma sukk sukk samay óom mun ma sukkal liyaar ma parce que dem na ba dafa dëdd mënatul wax ak kenn mhm. du wax kat da lay liyaar rek ñu toogal ma toog mu jël loxoom teg ko ci sama bopp bii taxaw ci kaw tiim ma di def ci man li muy def ci man ma li may dégg daal ci moom ay noyyi lay dégg ci moom ay ay ay ay soupir <laughs> ci kër daal di noyyi teg teg ma loxo teg ma loxo ma sentir sama bopp bi am lu dix gan la des mu macam, daal ni ma demal ñu ne nii demal ma toog mu ñëw woo sama rakk bi ndey xadi yaa rax yàlla na ko yàlla yëg defal ko noonu donc loolu protection bu ñu doon def la bala mu fiy jóge te ci at moomu bi ci ci at moomu la génn àddina donc côté boobu dañ ciy sant yàlla ni xam ne am na jaat ak moom jota jaar ak moom am jot bak barkel lu ci moom tam ndax dan na ma woo fii ma ñëw mu ñew ni ma ni ma wo ma ma dik mu ni ma dama bëgg nga bëssal ma sama yaram wi waaw ma yëkëti yu tedd ya duggal sama loxo ci yaramam bi dik ko bëssal dik ko masel ci sama loxo yi loolu am ko ci mom alhamdullilah rabbil alamin waaw cheikh mamour nag yàlla dongul luy bir yalla rek ngirum yalla rek loolu waaw ya bayam iyan, ko fi mu yan yan bi bayam yan won boole ko yan bi nga xamni yalla invité ko ci moom ni koy Cheikh Mamadou dama bëgg nga nekk ci sama góor yi yan booboo diis ci moom mu booleeg dondu baayam dondu baayam ci baatin baayam yi jox ko la mu yan woon yëpp jox ko ko ñaari yan yooyu moo taxoon Cheikh Mamadou yi doo ko doon ko sax danga nga naan kii du nit ndax il était trop occupé ak course gi léeg du la sax nuyu ndax nee na bu lay nuyu nii la daan def boo ko daan jox dara dana nii téye ko tegal yow loxo ndax lan nee na may toll naa yàlla foo xam ne nii ku ñëw di ma jox loxo dinaa xam ni nekk ci yow ndax danga ma bëggam danga maa bañ. ndox mhm. lu foofu toll dama koo tolloog toll ci yàlla moo war boo gisee may def nii sama loxo loolu da ko fer mooy tax te bugg ndax toll naa xam ne buggatuma xam ku ma bañ ak ku ma bëgg. Mhm. Cheikh bu sekk mii ca Ndar toog na fii ci dëj daju Cheikh mbay jaay Samb bi ñu toog ñu waxtaan mënuma Cheikh Mamour wo na ma lu ne. ba jékki bis toog jox ko loxo mu ni ko seere ma sa loxo cheikh cheikh bu seere ko loxo mu seere ko ba yàgg mu ni ko yëngani bi ma la jàppee léegi ñaata minute lay tollool cheikh bu ni ko ah xanaa ay une minute wala deux minutes mu ni ko loolu lépp dafa am lu ma yàlla yëgal ci yow bu ma téyee sa loxo mu won man yow mi ak taalibi bu dëgg waaw mu ni loolu moo tax na ma xam ko ci yow ma jox loxo keneen mm-hmm. parce que ma xam ku ma bañ ku ma bañ donk ya loolu cheikh bu seede la ak yeneen yoo xam ne nii dund na ko ak mara mu nekk lu yéene lool donc bu bu gàttal daal cheikh Mamadou Djimbira daal xasbi allah wa ni'mal wakil la doon dund maanaam dundal yàlla suñu borom wakilu ci moom nag ba jeex tàkk waaw ak gëmoon baayam nag jiital baayam lépp lu doon def baayam moo doon référence am waaw loolu moo tax mi am li am mu teel a siiw teel a teel a génn àddina tam teel a à 50 ans li ñuy wax Cheikh Mamour mhm. waaw ba mu waree génn àddina tam mu xam ne suba la war a génn àddina muy samedi ci guddi mu woo Fadal di taawam bii bu góor bi wowul woowul Ablaye Jimbira de nga xam na ne xamoon na ne Ablaye Jimbira bu mës a nekk xalifaam mhm. yaa ngi mu woo xamoon na ni euh, plutôt Ablaye Jimbira du fi yàgg te Ablaye Jimbira amoon na lu mu làmb woon amoon na lu mu meloon mhm. moom moo tax mu xam ni comme Ablaye Jimbira du fi yàgg mu woo Cheikh Fadal Jimbira di magam taw bu bu topp ci Cheikh Mamour yi bi topp ci ci ci ci ci Ablaye Jimbira mu woo ko ni ko damaa bëgg nga fanaanoog man tey ci néeg ci néeg bii muy samedi mu xëy suba euh, euh, dimanche war a génn àddina mu ñëw ko dama bëgg nga ñëw mu ñëw faadal ñu fanaanoog moom faadal tëdd ci lal bi moom mu tëdd ci suuf mu def ci leen li ñuy def ci moom mu ni ko mu xëy suba yónni ko dimanche bi mu xëy suba ni ko liyaar ko ni ko di yóbbu yónni ko ca dëkk ba mu dem ca dikk ba ba faadal avant muy dëkk muy ñëwaat ñibbi si ci kër gi fekk na mara dog na tekki na ay téere moo doon tekki na ay téere yooyu yëpp ba dog waaw donc loolu waajal na boppam avant muy dem waajal na boppam lool waajal ña muy waajal tam kon alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla 12 ans dong laa dund ak moom wax dëgg yàlla donc mënu ma wax moom ci bari li ci bari daal dafa naa ay ñoom Mafou Ndiaye ñoo la koy wax wala ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon taalibe si kër gi ñooñu mën na leen ci wax lu bari waaye li mu dund ak man daal loolu laa lay ak li ma gis ci moom muy wéetal yàlla suñu borom dëdd woon duniyaa nag waaw mu jigi gi nit ñi di lekk sax lekkatu ko waaw am na yoo xam bu ñu la ko waxee da nga naan kii moom macha allah li muy wax waaye daal ñun dund nañ ko moom seede nañ ko te dara jarul ñu ay fan ci àddina yàlla rek la ñuy wax man damay wax ngir yàlla tax waaw loolu daal laa doon seede ci góor gi te loo seede ci moom tam des na waaw kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko leeram te bàmmeel te bàmmeelam defal ko noof laayu bàmmeel ba kër bis penc tas ba gën a fi yan yi may kii yi may wax ci sama nekk maam Mawla Jalle moo seere moo ko seere. ak am na ak ak maam Faye Diouf la ñoo fekke loolu. parce que maam Seydou wax man jawe nañu ci kër gi mu féete soowu di ko di ko di ko tabax ma sukk ci suuf maam Seydou si kaw lañ yàggee tiim ko ñu. di tabax di tabax kii ñoom booy naa jawe loolu ma booyee sama jawe la. ma ñëwee sama yaay ni ma ci kër seen yaay àndal moom ma ànd sama yaay damay déggal ko mu déggal mu mu ma lool.

bi aaroon nag ay yoon i yoon yoon bu ko mbir mi dikkalee dëgg-dëgg man may dugg naa man nelaw moom yàqal naa ko waaw dama dégg mun la incha allah yow na xiyam doo dégg siraat jéggi leen siraat boot na la ca saan jéggi leen siraat waaw loolu loolu maa ngi lay gërëm ci màggu yàlla mhm. nga xëy bu ko neexoon sama roog bi du du mag bu yegg ak baaxu yoon teel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam mu defal na ma ko mhm. te boobu ma koy defee sax dana waxtaan ba waxtaan ñëw ma nettali loolu waaye dama ko waroon a nëbb. dëgg waaw ah, ndax dana ñëw mën ma muubee man ko mën ma waral ma jàll ma jéggi la saraat mën ko jéggi saraat waaw mën ma waral ma ma diitar mën ma dama koy bàyyi ma xam jikkoy wër yu su ko bàyyi woon ma ñàkk kon ma ñàkk faawu faawu dootuma ko ne kaay defal ma ko mhm. eh, te ma xam na may def dafa ko mhm. moo tax ma daal koy woo. ma daal di nanguwaat. lu lu yéeme la nag. waral sama gannaaw na fan la ko dox jël si ci gaz dox jël si dox jël si ma wala ma wàcc mooy ma man ma wàcc mooy ma jéggi nga seraat sa yoon nekkut. sa yoon nekkut seraat. ma gëm ko ndax bu ma waxee. Mm-hmm. te li wax gëmuma ko kon man du doon sama sëriñ moo tax li ma wax ma gëm ko bu rafet waaw siraat biiru jëm sama yoon na wax na la wax na ma ko te wëñu yàlla ak nag lu am muy ma sa njaboot sa yoon ne ko ci mm-hmm. sa yoon ne ko mm-hmm. mm-hmm. tey maa leen res ëllëg daal di way nag daal di maqaamul xool bi wa am na xat xool sa yaa alin faama fii diini wa duniyaana way ko mi sa'atu salika min rabbi yujibu lana bi jaay taa rasulillahi marjana wa bi inayati say xawaay bi sayyidi amin amin ya man anta mawlana wa salli rabbi ma asalam afdaluha ala muhammadina wal ali mawlana man am yaa ko jamoo ni ma xamoo ko ma xam dégg ma dëgg dëgg dëgg xat xoositu yow mi leen ko jàng adduna nag ak àllaaxira ni loolu nag sa'atu salika ma koo ñaan ñun rabbi mu jóge ci sunu borom fii jiw bu nangoon naa doon naa ñëw ñu nag bi jaay taa rasulullah ci dara ji yenteel ma mat mi ngi woowee taa rasulullah ki nga xam ni ko mooy ndawal yàlla mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu euh, jaar na ak ak moom ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mm-hmm. waaw di la ñaanalee moom tubarkalla sa yëpp seen lépp la yomb moom daal ko ko nun ko mag ñu góor jox leen bi ñu naan di tukki tànn ñaan baare ni ko may ko ndigal moom jàppale ko ci tournée bi mu demit ñu ñuy déglu jàngam ndax ñoom daal ne jàng maam mooy alxuraanam ak ak kàllaamam fa tabaaraka yàlla dafa wér bokk la yoo xam la ci waxu daan jàng dëgg moom la daan li may jàng soxla wu ci dara man ay Seex Njaay Jóob daan baax te bëgg dëgg ndax mu dégg naa baayam sax ma jëkkee sama kër gi moo fi daan nekk naan di ko wattu boobu sax ñu ñu julli suñu judduwul sama yaay sax ñëwul moom yàgg na si kër gi. Ah, yàgg na de waaye sax yàgg boo ko wattu kër gi nee na maa ko jëlee moom la fay bàyyi moom di leen kër gi mu di ko wattu dara daf daan tukki dem ak ñoom loolu daal mooy li ma ci xam. Tambacounda benn quartier ci bu ñuy wax Tambacounda fay jàng Cheikh Mamour yi benn waaye dal fa daanu lee rek sarax ko benn tisi mooy ja jamonoy tergal lu yooyu rek maraadi yëkkati kii bi jox ma mais xam naa ne maraadi mu ko xoolee xam na ne mbubb rek la ci am du mot du ci mot am tubéy yooyu mhm. mu ne waa ji boo jëlee ndimbali waa ji ko kii di sëñ bi maa ko jëndee benn dëkk bu ñuy wax préfet yi maraani xii ne daal dina ma jaay seetal bi ana ko mu ne ma kii de ndimbal bi ma jox nee na préfet ko jëndee waaye bu ñu yàlla te te fi ñu war a jàngi ji waaye bu ñu yàlla depuis ñu yóbbu rek comme damaa gaaw a bu ñu àggee rek laataa ñuy toog rek di ñuy dalal nañ dem ca marché ba ma jënd ko mm-hmm. yàlla dogal ñu daal di yegg rek moom sax fàtte ko ñu yegg rek ñu daal di jël taxi dem marché buntu buntu xam nga comme marché kilomètre bi rek quatre ñeenti buntu yi ci ne mhm. këyit noonu la mel buntu bi ñu jëkk a bi ñu yem waa jaa ngi bi mhm. mais en même temps waa jaa ngi teg bandu Cheikh Mamour te xamul mhm. wax ñu daal di ñëw rek xam nga ak kuy discuter yi da laa doon laaj ñaata mu ne ko juróom-ñeent ndeysaan marabu ak taar baak rafetaay ndeysaan yarga mhm. daal di arrière daal di moom daal di ne asli ah, bi gan bëggoon nga wàññi ñu ko rek ñu eh, mun koy jënd ndax dama koo xam te awma ci tubéy bëgg ci tubéy yooyu mu ko sëñ bi mu ko xam nga rek eh, mhm. waa ji jékki-jékki ne ko mu ne ko ko man kii suma xasee ba teg bànni dootuma bëgg sax njaay moo may euh, moom rek lay dugg jëndal boo mënul nga kii dem saa ma daal di mun nga saa arrière su ko mbir yàlla doyaat li sax sax euh, wàllu yàlla rek la di mun di ñëw rek ne si rek yem ci Cheikh Mamour daal di ko mu daal di ne na waa ji yow. di mu ne ko mu ne ko cheikh mamour yi ni kii mooy cheikh mamour yi mu ngay noyee te ma sa koo gis waaja dali gestu rek ne ca kii ba yëx yëx yëx yëx bala gis ba dali tëb contrat ànd na moom ñu rek dadi cot ndeysaan foo solu yaa ngi dégg dënu cheikh mamour yi dinu astaghfirullah dinu waa jiir yi ndax bëgg bu mu bëgg cheikh mamour yi dali ko ne nag léegi damay dem sama kër maraa ko déet ndax damaa ñëw rek ndimbali moom fii nii te ñun ñu dara sax ñu ci bëri gisaguñu léegi bàyyi rek buñ kii mun jëm su jëm kum wàññi na ko foog ñu dem kër ma daal di ñu yem fi ñuy nuyoo ko jàmm sant rek waa ji tënn ponkalam kuy moo xam ne daanaka tollam lu nag mhm. <laughs> ñu def ñuy teral ndeysaan ñu toog kii danoo mujj woote foofu woote foofa ñu daal di ni ñu ñëw bi ci numu tadef dafa mhm. waa ja ndeysaan mujj na jébbalu Cheikh Mamadou ñu koy wax euh, Cheikh Moussa xaw ma nag mujj gi daan daan toog maraada bi moo woo ma ana nga jaay ma ne ko dimbale mu def suñu waajuroon kon ko ñëwee moom ma yónnee mandat bi. Mhm. def ko ci enveloppe xaaral buñ kii yow pare ma joxal sa waat. Mhm. ndeysaan jël na moo di. alhamdulilah di taatu ci a toog benn bis ñu dikk ci Seydina Mouhamed ñu ko maral wi metti na lool lu bare ngi sikk ngir maral wi muy bis bu di àjjuma ba ñu jullee ci jumaa ja bëgg jël Muhammadu ñaanal leen kenn ku nekk ba mu daataa yegg këram mbaa bu mu yeggee toog tuuti wala ngaan ma ñëw di taw di taw ba jant ba soo bay sar yow yàlla nga di ko dolli ba muy Muhammadu Busayri ne fastahalat bil ghaydi sab bil ghaydi sab'ata ayaamin ba muy juróom ñaari fan guddeeg bëccëg muy taw nee mujj waa mi dina dil si ni ko Seydina Muhammad noo la doon ñaan loo ñaan nangu na waaye nangu nga daa dem ba yegg na ci leer gi na lu ñu ni koran mu ni juróom-ñaari fan yi mu ñu ne ko juróom-ñaari fan yi mu cagale waral na lu bare ñu bëgg a lab ñu sedd ba sedd bee yeneen ñu ragal mu bàyyi ko ci taw ñu ngi koy jàmbat sayidna muhammad dellu génn jàkkaarloo yow yàlla na rabbi rabbi xawaalay naa dëgg la demoo tuddaloo ma mhm. ko waaye maam moo dama defal loolu. waaw loolu la maa yor sama bopp. maam moo yor daal wax dëgg yàlla foo yóbbu la. Mhm. foo yóbbu la sama yoon ñun sax yóbbu la ñun sax yoon juróom-benn la ba juróom-ñaar la. Mhm. yoo xam ne maam moo daal ak ak daay la dëkk la boo sama saf la. agak-agak dikit aku itu bisa lah macam yes itu punya pengasih jangan dan juga ya. jangan kawal jadi soal itu orang ya betul-betul cuma mau ada cuma tahu untuk cuma hanya bisa dua dua dua dua saja nah itu jangan ada semua semua semua semua jangan namun itu sekali belum kau tahu kalau itu untuk hadir gua ya. pun mau mau alhamdulilah ñëpp ñu yor ñëpp ñëpp yor ma ci gën lew am mu ñu mu sa ñàkkal ma mu wooyee moo ci géej na leer rek nga xam jàpp naa ko rek. bu mm-hmm. mu kontaanee rek day si ba suñu bët ñeent mu xam nga ñun ñi sax doonte suñuy at bëriwul waaye am na luñ ci jot a fekkee yaa am na lu ci jot a fekkee. Pambay Tiga jago. Ambai. San 92, 93. Laa jóge dem Abidjan. Ambai di xale bu ndaw. Ma dem ci xale yi ma jël na moos. Mu mu mu remplacer ma def ko un lay deux mois. Boo dikkee ma ne kenn ko sama doom mhm. kan sama natt jël ma xëcc mu tawal. Mu su bu rootee rek mu sonn ma la. loolu la bi nga xam maa ngi koy tàggu fii ñu dem niñ sax di liggéey la seen xutu maam mooy li ma dama li ma wan ma gannaaw ma fab sama gannaaw taxaw ci kanawam maam di jox dama ñaan ba yokku ko dima ñaan la. daan yu xëy ma gis ne muy fii ci fii ci fii ci jàkka ji. waaw. ci jàkka ji. incha allah kon yoonu sori maa ngi. wallaahi wallaahi wallaahi. sori nañu de. sori nañu lool lool lool fii am fenn fooy wax fii ci réew mi. Hmm. te mos a ànd ma maam mooy. dëgg la dëgg la. na ma nag. ndax ba ma génne àdduna ak léegi. Hmm. amul bés bu ma ko bis bu ne dinañ ma tudd Ousmane Modou dinañ ma sa sa sëñ ma waaw Ousmane dama Ousmane Fall dama ne yow de ma la génne ngay dem Mame Modou lay génne waaw Ousmane ma dem waaw yàlla la ma sant bu baax waaye lépp na ma sant ko ndax nag moom ma nangul njëbbal dama boole naa sama jëm ak sa jëm sama garab ak sa garab yéemal ko Cheikh na Cheikh waaye nag Maam Mori mi mooy sa sëriñ hmm. beesal na ko nag bi muy bëgg a génnaat ndeysaan kan maam Cheikh Diop waaw ah? ñi hmm. ma toppal ci moom hmm. mooy si sëriñ keroog mi xam ne yàlla may na ma doom bu góor damaa dem moom ne ko ah, sama dimbal man de am naa doom bu góor man ma mën ma demal tuddee ko Maam Mori te bu kenn dox sa diggante ak moom looloo jafe <laughs> bu kenn dox sa diggante ak moom jooje mu wuuri attaque ko bëgg sa loo ko man dëgg la ndax wali yoo ko wax xut bu samaan waaw mm-hmm. mm-hmm. ñax sama numéro xut bu samaan la mm-hmm. ndax seex na seex saat bu moo woon sama numéro bi xut bu samaan la man nettali la ne damaa toog seex saat bu dafa toog ak soxnaam xam naa moo ne Imraan xam naa war a doon soxnaam la daal nee na sama numéro bi këri dem mu ne soxna si sama numéro bi xut bu samaan la nee na mën soxna si ne ko yow day yow seex saat bu koo jóg nga ne xut bu samaan mu ne ko fa ñuy wékk mbubu xurba ya hmm. wékk naa ci mbubu xurba solo ko saa ji bi la. Eh aywa sax moom sax soxna. saxtaan bi waaw. Hmm. loolu. ko de. Ah, ba nga wax waaw. di ko doon mën a bu bu sama ji bu bu woo Cheikh Jimba la. bu hmm. ne Cheikh Jimba la. bu ko du jóg toog noonu rek lay wéyee. <laughs> noonu lay demee waaw noonu lay demee. <laughs> bu ko fekkee jaaxaan jaaxaanaay ba lay demee ci sax tool waaw lu mu ko fekk position bu mu ko fekk rek. noonu lay demee ci position boobu lay demee. Mm, loolu lu mm. rëy la. Mm. fii nag dama wax te njaal benn ni la. am na fi lu ma fi xam loo xam yéen a ma ko nag. du ma tey yegg. am na yoo xam ne sañoon na ko yegg. Mm-hmm. am ñu sañ tey yegg. ay njabootam a nga ñuy toog. Mm-hmm. Fatou Barka la deret ci Mamour la. dëgg waaye fa tabarkalla li ma Mamour joxoon ci baax nu ma doon dimbalee ni ma bëggoon sama faral seen yaay nag ma sant ko yàlla waaw ma doon ci loolu jigéen mhm. ay garab ay ñu bëri wu si ba ñu bëri topp tool. te boo demee sa sa sa taay boobu dafa teg loo xam ne sama bopp xuma lu ñu wax. wax nañ ma bàyyi xuma xuma lu ñu wax. ndax dama daanu naa. waaw léegi moom mooy loolu yëpp la. kontaan naa trop daal. te sa affaire bi ñu ñëw di ma doy la ci nga doy ma ci ma ñëw di ko wax. di ma ci laaj xalaat kontaan naa ci bu baax daal. ndax laaj nga ma li ma sawar. daal kontaan naa trop daal. Mhm. maam moom ku ma laaj ci moom rek laaj moom sama xarit. dëgg la laaj na sama xarit. dëgg la boobu sama xarit la. dëgg la. mu sëriñ la sama xarit la. Mhm. bàyyi nag moom boole ma la moom. Mhm. moom ñu àndal ma maam waaw man ko yumbal ma boole naa la maam moom. waaw man maam moo di mooy sama xarit. dëgg la mooy sama sëriñ. moom benn sëriñ man moom la. xam nañ si dara boobu. bu ci léegi. ku ma ñëwee da ngay yas mu lu ma ñëwee da ngay yas ñun suñu laa ko màggatu. dëgg la waaw fa ma newoon màggatul dëgg la mbuub dëgg la dëgg la jërëjëf mbuub waaw ñoo gën a kontaan mbuub yal na yàlla guddal sa fan te bàyyi laa sa xel yokk fan wi ba mu gën a gudd bàkki Cheikhul Khadim bàkki Cheikh Mamour Djimbira waaw jërëjëf mbuub kontaan nañ lool jërëjëf sarta ko ba mu fee del waaw léegi léegi kon safari safari safari Cheikh Sidiate yi ñoo toog ci wéni pour tëj ko abu caabi ji ne ko nag lu yàgg yàgg mu yàgg yàgg mu mu ubbi ma laalee la <laughs> ñu toog ba añ ñu nañ seeti Maam Mor jox ko ak ah, jox ko ak ñi ñu ubbi néeg bi gis ñu ci Maam Mor xamuñu fu mu jaar xamuñu fu mu jaar <laughs> ñu téléphoné kay mais yaay xam ne neen ñëw na de ah? ci saxaar saxaar la waaj man ko wàccu saxaar ka <laughs> eh, tisbaar kaw la tisbaar kay meer abouka loolu dégg naa ko abouka ah nee na ñoo bokk ah, nekkandoo kaw rek kaw la jeex na sax nettali na ma ko mais loolu kenn mosu koo gis bëri bi ma ne safar yi ñoo toog ci wali pour tëj ko ndax wali ñu fees mu ni ko nag bu ma ubbi ci caabi jàngi nii waayu muut ndokor bu ñu la laajee ne la ñibbi naa. dem naa rek ñu toog ba añ jot ñu ne nañu jëli ma seen Maamori. waaw ah, pour ñu jox ko añ Maamori ne sa keneen ne la. jàmm nekkul ñu woo kebe mais fii yàq di mu ko maamu di noonu jaaxal muy leen ma ngi nii de nii de <laughs> <laughs> xibaar kaw la même heure rek <laughs> eh, a chef bi moom kii ah xam nga ne sa bàyyi am na kii lu ma la wax bàyyi ma nga ni di maa la ko wax mi laaj barka ba mu ah, laax nee na nag nee na ñemewu ma yàlla ba koy fenal billahi wallahi taala nee na man nag ñemewu ma yàlla nag bay fen man man wilaayam kenn ko kii ndax xool dafa gis ñu génnaat na ma ni nit ñaa ngi koy tudd ah te mi ngi feeñu nit ñi mu wan leen rek loolu bari na ci ay kéemaan yu mënoon def ci àddina waaye lépp da ko ci dëgg ci tànk mm-hmm. nëbbu nit ñi ba dem kon kooku li ma leen wax rek nitu yàlla boo xam ne nii kenn waral wàllu bi manque benn guddi mm. waa yooyu def na ko dam ci ci ci misaal daal maanaam ci ma lay wax ci nitu yàlla am mm-hmm. waaw lii rek laa la ci doon dolli wan ni leen ni moom dañ ko jàppe ne waykat rek waaye <laughs> mu woon ci waykat waaye nitu yàlla bu mag la woon dëgg la am na lu mu seq ak moom mm-hmm. ci baati mm-hmm. waaw gis nga new gi nekk sëñ Xaadim Gueye toog na fi di jaamu yàlla di jaamu yàlla nee na deux ans ñaari at neen at bi ci njëkk Serigne Touba dafa ñëw fekk boobu am àndaari xorom ñu ko joxee àllaayu xool ñu ko njaboot gaa yi noonu dem na dénk naa la njaboot ki dem na ne mhm. nañu déet na waaye beneen année bi Serigne ko feeñu waat ko tollituwaat jox ko àndaari xorom ñu ko joxee àndaari xorom ñu ko njaboot gaa yi noonu dem na waaw am na benn euh, Ibra Diop sama mbokk sama xarit la sama wala nee na si Cheikh Mamour misaal na ko ci moom ñaareel la ko ci moom te moom murit la mhm. macha allah nee na ma man romb naa sa papa fii ci garab mu ni ma mënu ma noo sant noo tudd mënu ko Ibra Diop ko dee Ibra Diop mënu ko noo tudd mënu ko Ibra Diop ko dee tudd mënu ko ñu ngi ma tudd Ahmadou Bamba mënu ko waaw kay loolu mooy sa tudd mhm. mun a xalaa xamoon ne Sëñ fekk na ma fii ni ma dénk naa la Mbàkke mhm. ñu ne ni naa la Mbàkke yow maam kon loolu ki ko nettali daal yow Sëriñ Tuubaa mhm. waaw kon nag li may wax ci misaal bi kon loolu moo wax fee ñu ko deux ans loolu misaal baa ngi noonu. dëgg la kon da lay war ni rek amoon na tamit kóolóore ak Serigne Touba. Mhm. ci ci ci baatin. waaw da war ne maamoo di dimension bi mu tolloon. Mhm. macha allah yàlla moo ko jox leen loolu daal. alhamdulilah waaw yàlla la ko moo ko jagleel loolu kon nag. Ah, lii rek laa amoon lu ma ci dolli bañ nag ñi ñu bañ koo réere rek daal. Mhm. xam nit moom duñ ne ci àddina réer la ba dem. njariñ li mu amit nga xam ne am na ko tamit ëllëg. ñu bañ leen koo nëbbee wax leen rek leen ne ci moom. Mhm. pour nit ñi bàyyi ko xel bu baax. bari na fi ñu ay ñëw fii ci xam ay 2 heures du matin 3 heures du matin di ko ñëw di ñaan seen soxla. dëgg la yàlla leen ko fayal. Chérif euh, Abdou Aziz Aïdara bu Thiès daan na ñëw fi di siyaare Cheikh Mat Jimbara ndax dafa tëdd saa yu tëddee gént gis naa Cheikh Cheikh Sa Cheikh Sadou Habib na bu gisee Cheikh Sadou rek gis Cheikh Jimbara ci wetam nee na miraaraan mu koy def du ko def mun ah man daal ak ah, mbir mi kon daal Cheikh Mat Jimbara mooy bund Cheikh na nee na danaan toog ba xaaju guddi moom Abdou Aziz Aïdara bi Thiès nit yàlla kenn du ko nee na waaw kon li li ngay wax da nga bu fekkee da nga da nga ko wax mu mu la nañ dawañ ko wax cofantu nee na danaan toog ba 3 heures matin wala ñëpp tëdd mu ñëw ziare Cheikh ma Jimbira xam ne mooy bundi Jean Sassar daal delluwaat Thiès miraaram def na ko ba tey kon Cheikh Jimbira moom it dama liggéey ci question bi Cheikh Sall ki nga xam ne mhm. boo gisee lii lépp am nag ginnaaw yàlla ci moom la jaaral ndax moom lépp moo ko liggéey mhm. moo tax ñëw Cheikh Sassar jaaral moom fu ne bokk moom benn lal ba bërsët ak amaana a kilifa gu dee ni Cheikh Saad di bokk Cheikh benn lal ci ak soxnaam ara amraan ba bërsët kooku xam nga nii wóoruloo ba chère bi laajee ni ko Cheikh na Cheikh Saad li ngay def kilifa gu dee ni yow ngay def ak lii mun leen Cheikh Ahmad Dimbale mi de yàlla damaa xamal ni Ababacar Saad def na mu bëggoon yoon ci yàlla ma met noonu la ma Cheikh Ahmad Dimbale bëgg mu wëlu wa mu woy ko woy Cheikh Ahmad Dimbale way ni ko kafaaka mi nii ma ma faxtu xam bi لقلبك دمي لدمك روحي لعقلي لعقلك ويلي لأكفك مني قلبي yow ma Cheikh ma dimbale yow jël naa sama ruu ak sa ruu def ko muy benn sama deret ak sa deret def ko muy benn sama xel ak sa xel def ko muy benn yaay sama ñun ñun bët te ñun ñun bët bu jugee ci bët bët ba dootul gis waaw kon nag xam nga ne Cheikh Jimbira mooy génn wàllu Cheikh na Cheikh Sall dëgg la Jimbira ñun ñun bu bët bu jugee ci bët bët ba dootul gis dëgg la te nee na ko Cheikh ma Jimbira yaay sama ñun ñun bët te ne ko nag loo jur nag yow Cheikh ma Jimbira chérif la ci rajo ci ci ci rajo laa mel. Mm-hmm. kenn du ko weddi te Serif xam na ko. Mm-hmm. mun ko loo juree si am na dimbali Serif la. ku jaxas sa deret sa deret kat. Mm-hmm. ak fi dégg mooy demal Nimza boo demee Nimza. Serif yee koo ci woo muy góor muy jigéen jimbara la lay wax. tudde jimbara. dëgg la li waral loolu tudde jimbara boobu dafa am jamono benn feebar bu fa amoon ku fa judd rek dem feebar ba jaaxal leen lool fa judd rek génn àddina. muy bëgg a lëmb nit ñi daal nee na Cheikh ma benn bi Cheikh na Cheikh Saad bu woo leen ni leen kaay leen woo leen ba ñëw ni leen képp koo xam ne ni bëgg nga sa doom juddu fan te barkeel juddu juddu fan te barkeel nee ko Cheikh ma Jimbal boo ko tuddee Cheikh Mouhamadou Jimbal dana gudd fan dana barkeel. Mhm. ba ba ku fa juddu doom rek tuddee ko ma Jimbal moo tax boo demee ba léegi. maanaam boo xam ne ku waa kër Cheikh Sadou yëpp. ñëpp di sant ñëpp. ñëpp am nañ ci jënd ak ñëpp. man الموالي لمن أبي يا محمد كما الشخص بدأنا الموضوع بمجرد الإسلام والعزة ومشاركة دوم مؤمدان ومن يوم يفوتنا ولا يفوتنا لك ما يفوتنا ما يفوتنا مجيئا لأنه من يوم يجينا Thank you. ba léegi may wax ak yow boo demee si nimu sa sérif yi muy góor muy jigéen bëri na fi ñu tuddi jimba dëgg la wax ñëpp lépp li nga gis li may letti rek Cheikh Mamour rek Cheikh Sidi bi ñëpp ah liggéey Cheikh Ahmadou Djibril ndax moo ko liggéey ci kër Cheikh Cheikh Saad kër kër yi ba indi gi ci fii ci mhm. kon firnde gi xayma Cheikh Cheikh Saad li bi yaatu yaatu buñ dikkee numéro la ñuy dal te bu fi jógee départ mu jógee mhm. dal feneen mhm. loolu fii la ku ne xam ne ne cortège bi bu dikkee Kébémer nin koy teeroo macha allah mbooloo mi mhm. waaye fi muy teere ji kenn sama jibi kon li ma wax nii lépp firnde gi noonu mi ngi dëgg la jimbira kon macha allah dëgg la loolu liggéey Cheikh ma jimbira la lii lépp moom moo ko wax kon nag lii rek laa am ci li may pour nit ñi rek bañ a mu bañ bañ réer réer mbir du waxuma ko ngir bàkku waxuma ko ngir wanew waxuma ko ngir bëgg mbooloo waaye wax nag pour laabire rek. Eh, sëñ bi nit ñi bañ koo réere rek. ah man damay filme waaye lii nit ñi mooy koo bii nii man damay filme waaye kon mën naa la ko dooleel mooy ab seede mm-hmm. Cheikh Mamouri mm-hmm. man damaa tëdd di nelaw mm-hmm. ma soonu nii gis sëñ falu Mbacké soonu ci lal bi ma tëdd mu ma foo dëkk man ma ni ko Kébémer moom sëñ Fallou moom Mbacke moom mooy ni si tonet ni ma dëkku Cheikh Mamour Jimbira ma ne ko waaw mu ni ma kooku de bis bu ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam seet si ko moo waral boo gisee ma julli àjjuma pare nga may gis ma yibbi xabru bii du fi dugg mhm. loolu sëñ Fallou moo ma ko wax te ñi ma ko waxal te ci àdduna laay waxal ndax ci télé laa nekk dëgg la dëgg la kon li nga wax ni man ah. maa la man maa lay doolee loolu ah, moom moo ni ma dëkku Cheikh Mamour Jimbira mhm. Kébé maire ma ne ko waaw mhm. mu ni ma kooku bis bu ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam seet si ko loolu wax na ma ko si sa wayjur lu mu wax kooku sëñ Fall lu mu wax. ñi mu ma ko waxal alhamdulilah ji bi rek. alhamdulilah kon mbir maa ngi noonu. jërëjëf ñoom ñëpp ko la. alhamdulilah wallaahi ndeysaan. waaw ah, ok wallaahi ndeysaan. asalaamaaleykum nit ku ragal yàlla nit ku baax nit koo xam ne ko am na yërmande ci doomam ci jarbaatam ci mbokkam ci ci jullit yëpp wax dëgg yàlla macha allah. di ko ñaanal sunu borom yàlla na yàlla yokk leeram. ak képp ku mu fa fekk di jaay si bi di waa Aliou Moussa. jërëjëf jërëjëf bëgg nañ lool Djibril li ngeen def sewxa la maam hmm. Mori tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant macha allah moom ku baax la hmm. ndax ku ne xam ne ni ñu ngi yëngu ci kër Cheikh na Cheikh Sadou hmm. rawatina kër Cheikh mu Djibril ak turandoo Cheikh maam Mori di ci def reportage macha allah lépp ci am la xale la waaye macha allah xale bu baax xale bu xam fu di leen ñaanal nag yàlla yàlla barkeel leen yàlla guddal seen fan te incha allah li ngeen def de mhm. yokkute rek ngay am alhamdulilah jimbira incha allah amiin jimbira nag maa ngi leen di leen sant jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Yeah. together.